sama mam Fuuta la bokk wala samay mbokk ay tukulor la ñu bokkoo ci ñooñu ku dem alwar dem njum dem gan dem côté mbooyo dina fa gis say jëf merci monsieur le président monsieur le ministre du travail monsieur le ministre des finances monsieur le ministre du tourisme monsieur les collaborateurs du ministre na len euh félicitations monsieur le ministre comme ni ko ñëpp waxee ma nit rek lay jaar Euh, dinaa wax ci tuuti si suñuy préoccupation parce que commission bi fekkuma woon fii man podoor laa dëkk ñun Podor li tax ba podoor commune mënul développer mooy ko boo ñëwee ba dugg podoor foofu ngay taxaw dem bëggoon naa ko wax si ministre des transports baag moo fa ne woon ñuy jokkoo lante ak Mauritanie loolu yëpp amatu fa mais ñun dañu yoon si suñu tourisme ndax buyel mag daat moo fa doon ñëw di indi ay touriste waaye tey jii gisatuñu dara ci tourisme mu yàqaale suñu artisanat te économie Podor artisanat bi def ci amoon doole ñëpp déggoon nañu poterie podoor ak teinture Podor ñëpp ko déggoon tey jii loolu yëpp mënatul dem dëggala la président Mamadou Racine si mu ngi bëre mu ngi def lu mu mën waaye Euh, dafa am lu dess lu beure def na fa ay hôtel def na fa ay auberge mi ngi def lu mu meun pour que Podor meuna développer ci côté tourisme mais machallah li yalla xam doyna monsieur le ministre des finances mi ngi sawet li fa nek fi avion yi di wacc xawma sax nan la koy tuddé fi avion yi di wacc Podor xawma nan la koy tuddé bu gam siiw bi ñëwee beure ni ci ay ministre yu dem fi Podor gis nañu nu muy mel bu avion yi wàccee poussière gi ñëppay mel ne li kenn xamul donc dama damay ñaan ngeen def si xel xam le ministre Abdoulaye Daouda Diallo xelam mi ngi ci mais man ma jaar ci rek euh, monsieur le ministre so tawi en kaali ɗemgal pular hande en dañi er sénégal sa yi yimɓeɗa haala ɗemgal wolof c'est pour que ñëpp dégg si li may wax waaye man pulaar laa gën a maîtriser que français que wolof mais su may wax wolof c'est pour que ñëpp dégg li may wax Air Sénégal mi ngi wax wolof di wax français di wax anglais mais nañu xam ni wolof presque Sénégal gi rek la yam boo jëlee langue bu mel ni pulaar ay pays yu bëri ñoo koy wax te ñun ñaa ngi siy wax di naan vraiment Air Sénégal bu fekkee dafa bëgg clientèle marketing la loolu day yokk nañ si eh, taxaw eh, monsieur le ministre dañ leen di wax rek bon vent li ngeen di def yàlla gis na ko sénégalais yi gis nañ ko président Macky Sall vision am leer na wax naa ko fi barki démb du fal ku kuy coma eh, ñi nga xam ne genre Amy Ndiaye ñii bi gi ñëw taxaw fii wax lu leen neex loolu moom jarul tontu ñun suñu dëkk dañuy xëccoo nguur gis naa ki nga xam ne kii dafa xëccoo nguur ak ak ak gorom mu daaneel goro gi jabar ji ñibbi këram mu ñëw bu mu ñëwee papa ji ni ko dellu yow am nga jëkkër comme am nga ku mu mën a dendi si nguur yow am nga jëkkër kon nag boo juree doom dangaa bëgg mu gën la bu yàlla defee nga jàngaloon ko nu ñuy nu ñuy téye nguur yàlla dimbale ko mu dem ba jëlaat nguur santal yàlla te nga dem tëddi jël retraite merci